Euh, kan la foo ñuy wooyee ak. maa euh, ngi leen wooyee Pikine. bisimilah maa nekk maa ngi nekk sëful bis am 30 ans. Mhm. waaw dafa lu ma doon allongé quoi xam nga maa ngi soog wax mais gis nga euh, oto yi transport yi yi daw ci àll bi. Mhm. amul benn benn bu si am physique te kiiwu normal allo. allo oui sëñ bi yow rek la ñuy déglu. waaw waaw maa ngi wax parce que oto yi yiy daw ci àll bi susu boobu noonu sogee ñaari oto yooyu tese. waaw. Euh, benn bu si nekk mi ngi war am soixante cinq personnes. Mm-hmm. mais buy jóge Europe di ñëw Sénégal. carte mm-hmm. grise bi loolu moo ciy nekk. ok mais à la fin dañ ciy yokk beneen quinze places bu ñëw complet nekk soixante douze personnes. léegi modification yooyu ñan moo leen koy permettre pour ngeen def ko. waaw mais oto oto yi doo dee oto yi dama ne luñ ciy teg avant client yi di yëg avant kenn di yëg rek dèjà dafa am poids waxuma la sax ah, bagage bi mais oto bi taxaw noonu rek mhm. kenn yëgu si mu am porte bagage bi noonu rek dèjà loolu rek ëpp na 30 tonnes ah c'est vrai waaw ba pare en plus nga bëgg si tegaat ay ay bagage mu war a nekk 3 tonnes wala 4 tonnes mhm. waaw clients yi ñëw remplacé nekk soixante douze personnes soixante douze personnes yooyu boo calculé ku nekk cinquante kilos boo ko multiplié soixante douze personnes yi kooku ñaata tonnes la xam nga léegi dèjà yaa ngi jël oto bi si chargé nga ko hmm. voilà léegi ma demande si beneen version dama bëgg arrêté hmm. pono yi ñuy monté pono yi ñuy monté hmm. amul benn benn benn bu ci normal boo xam ne da nga ko doon jënd ñu jox la facture ne la dala koy garanti deux mois wala trois mois pono volant la ñuy monté mooy pono yi daw oto ba sonn tubaab bi dind ko sànni ko ñu ramasse ko indi ko Sénégal oto oto yi daw transport yëpp ay monté pono yi des saa sax balaa ngay départ yenn saa di ko xool sa pono ñaaw ne ah pono bi de yaakaaram dina egg mais yàlla baax na naa dem rek su ma eggee bu client yi wàccee ma gagné tout l'argent comme ça ma jënd beneen pono moom moo am transport Sénégal Sénégal amul benn oto boo xam ne nii euh, valable na di daw normal ba pare inversion yi bëri na policiers yi ma waxaat tam si version yi man dama parce que damay dem Fouta mhm. damay dem Tamba damay dem Kolda damay dem fenn mais policiers yi bi ba mu droité bu ñu ñëwee xam nañ oto bi pneu bi dafa usé. waaw a laisse tomber amuñu problème boobu dañ ko waxta dee. accident yi am Sénégal yëpp bu doon policier boo arrêté oto xam nga oto bii nii pneu bi na baaxul nga ko war a arrêté ko wàcceel client yi euh, wàcceel bagage yi yàqale client yi yaa xam boo fa amee 5 heures de temps 6 heures de temps parce que doo joxe nga dem moo fi am. moo moo ab oriental oriental soo ko déggee mooy oto bu jëm Tamba wala Kolda wala lu lu lu am moom moo nekk ay Ndar li saa tool Dagana Fuuta dem oto yëpp foofu ñu gën a seetlu accident yi normal mhm. oto boobu noonu def soog damay arrêté sama dernier cadre moo nekk euh, mhm. bi moo toj pono gauche moo toj fekk mhm. oto bi ñu tase mais pono yi ñoo normalu maa ngi jégalu si kii bi parce que mënu ma wax lépp sama xol mais euh, juste pour pour pour ni dem wala yaa ngi garder ligne bi c'est juste par rapport à une question visite technique yi euh, comment ça se passe parce que déjà yaa ngi naan euh, day am modification yoo xam ne dañ koy def. Euh, di di di ba xam visite technique bu normal la boo duggee su normal dañ lay daax. waaw boo amee visite technique mooy valable na xool nañ sa oto lépp tuuti neuf war ngaa mën a dem mais oto yi amul bu oto buy dem ci àll bi am visite technique normale mais ba si policiers yi bu ñu vérifié carte grise bi dañuy xam ne carte grise bi amul visite technique mais intéressé wu leen nañ ko wax te dee doomu jàmbur yi ñuy rey ci àll bi ay oto yoo xam ne ni baaxuñu yàgg nañ dañ koo pintiraat comme ça ab yeeku nii taf taf ko teg ko boo duggee si garage ne oto bi bu bees la mais client bu jógee sa kër gàdd sa doom gàdd sa sët nga damay dem ndar wala may dem fuuta boo ñëwee ci oto bi langa nga ciy xam la nga ciy xam mhm. doo si xam dara lu dul yëg toog ba pare ma wax la beneen wax man. damaa hmm. bàyyi dawal auto transport léegi maa ngi def si trois ans hmm. maay entreprise di liggéey ñu may fay sama journée au ma contrat moo ma gënal parce que man du ma daw parce que transporteurs yi jënd seen oto vingt cinq millions wala vingt millions woo chauffeur bi jox ko na ko chaque vendredi da nga may jox six cent mille. yow da ngay accepté parce que mënoo toog di ñaan kenn xaalis léegi soo demee benn voyage nga ñëwaat Dakar mooy vingt quatre heures ñëpp moom lañ def oto yooyu def soog sax vingt tourné waat oto bi. indi waat ko Dakar. soo ñëwee Dakar da ngay defaat vingt quatre heures da ngay demaat Tamba soo eggee Tamba da ngay defaat vingt quatre heures ñëwaat Dakar comme ça sa versement mun na nekk cinq cent mille wala six cent mille nga jox ko borom oto bi soo ko deful boo ko moyelee deux fois da lay dàq dem xooli beneen chauffeur bu koy def léegi yow tey boo jëlee chauffeur nga sas ko loolu fan lay nelawee nañ waxtaan lu tax fan lay nelawee. c'est vrai fan lay nelawee mënul ba pare dangay ngay leer sa pono bi baaxul nga war a dem génne benn cent junni pono mais doo ko def da ngay jël benn secours boo xam ne ni leer na ne secours bi daal ah naa góorgóorlu ñu ba dem su ma eggee ba ma gañee xaaj junni pono moom moo fi am lañ nga wax fi ñuy yëpp mooy pono yi ñuy wax biri Jackson biri boo ko jëndee à deux cent cinquante da lay defal facture am nga garantie six mois bu tojee ñëw ñu jox la beneen te du toj ñu fi munte ñu fi mus a monté biri Jackson daw seen pono toj dina daw du dina daw neuf mois mas moom un an pneu bi xaw a jeexee à côté nga dem changé mais ñu koy changé dafa néew nañ ko waxta dee oto yi fi sog yëpp yëpp laa la wax erreur boobu lañ am mm-hmm. erreur boobu lañ am pneu bi dafa toj pneu bi normal lu moo tax mu toj quand même rey ay doomu jàmbur ci erreur nañ ko waxta dee ñu fiy wax yëpp si média bi di wax ay télé xamuñu dara ñun ñu di ko dawal xam oto yi xam nañ ñu si nekk nañ bàyyi li ñuy def di rey doomu jaamar bu jeexee deux jours trois nga lor doomu jaamar yi nga jëlaat oto defaraat ko dem ko defar ko mu dem liggéey ñaata oto moo fi soge ñu ñu dem defar ko mu dem liggéey bëri na bëri na mais nañ ñuy sàmm ci àll yi ci ay ndogulu yàlla la ba ndogulu yàlla moo fi am munoo dawal sa oto oto bi di génnee cent quarante nga dem di ko dawal ay cent mm-hmm. ngay dem sa yoon mais dawal ko quatre soo ko dawalee quatre su pneu bi yuuxoo di nga ko téye di ko téye ah vraiment nañ dimbali doomu jàmbur man ñu dee maa ngi leen di jaale seen mbok om um. parce que amu ci dara mais sëfoor laa damaa toog sama néeg yeewu taa sama télé gis journal bi dawal ma dugg si YouTube bi gis mais vraiment wax dëgg yàlla na ci gouvernement bi teg loxo yéen ñi nekk si télé bi nag boo leen mën a annoncé sama message bii ngeen dimbali ngeen annoncé ma man sëfoor président damay daw Fouta damay daw Casamance message bi jàll na et c'est important et euh, monsieur Ndongo li ñu doon wax rek le mal est très profond te déjà ce conseil euh, interministériel bi nga xam ne le président de dina ko def ak euh, ñenn ministre ak it soi-disant acteurs yoo xam ne ñoo nekk ci wàllum euh, transport euh, bi nga xam ne euh, terrestre bi ñii leen fi soxla ces ces ces jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum transport bu ñu xam carrément deal ci nekk ak ku mel ni yow mi nga xam ne da ngay yëngatu ci wàllum formation routière. waaw mais xam nga moom bi ki génn léegi am na lu mu wax. Mhm. li wax tamit dégg xel mën na ko nangu. ci plateau yi nekk xëy na dinañ ci dégg ñu bëri bëri mais am na ñu ñoo xamante ni tamit li ñuy wax xam nañ ko am nañ ci xam-xam bu wér mhm. parce que catégorie de permis yi ñu yor ñoom ñu moom la ñu yor wala ñu yor joo xamante ni ñu yoruñu ko mhm. da nga daw ci Sénégal daw bitim réew da def ay lu ñu def def nañ ko man par exemple def naa <laughs> Dakar Abidjan par la route da nga def naa partout da nga au Sénégal un peu partout dans le monde ci ay opération mhm. donc ñi ciy wax xëy na am na ci ñoo xamante ni la ñu wax xamul de manière générale mais na il faut aussi ko ñu xam ni am ñu fi nekk ñoo xamante ni xëy na mënuñu leen mhm. dégg nga mais ñu ci am xam-xam wér lañu mhm. ndax du fekkente ne bis boobu lay wax moo tax euh, <laughs> dégg nga fekkee bis bi muy wax bu dee bis muy wax équipement yi ci nekk yëpp xam naa ko mhm. dégg nga mën naa ko dawal bu dee camion mën naa ko dawal bu dee remorque mën naa ko dawal dégg nga ainsi donc li ñuy wax contribution la rek pour que ñun ñëpp ñu comprendre te mhm. du question teesante du question weddente mhm. ku nekk am na sa xam-xam boo yor ci affaire bi te nag mhm. dafa nekk un problème national mais li am solo daal mooy ni moom li wax wax na affaire corruption wax na vitesse mais bu ne quatre-vingts à l'heure dama ni oto yi ku lekk ku topp seen ginnaaw di daw di nga seen daw plus de cent kilomètres à l'heure dégg boo te li loi bi wax ci Sénégal. Mhm. oto bu passé quatorze places soixante dix kilomètres à l'heure la war a daw maximum maximum. Mhm. maximum. Mhm. mais le problème qui se pose mais oto yi modification yi ci nekk. oto yooyu est-ce que nañu lampe yi ci nekk est-ce que lampe yu réglementaire la. oto yi ñaata lampe la fab def ko ci kanam mu mel ne ab panaalu ndar. lampe yoo xam te ne réglementaire te loi bi daf ni yooyu koo def délit la war tëj kaso. te loolu dafay romb policiers yi romb gendarmerie xam nañ ah. ko aussi. dafa naan xam nga les policiers gendarmes ont pour bon dos mais nit li li nga xam yow mënu man mënu maa nekk fii def li si liggéey parce que jànguma ko. c'est vrai bu ma def su ma ko defee damay def imposture. Mm-hmm. nee naa loolu di ëpp ci ñoom ci takk der yi c'est des officiers ou agent de police judiciaire. Mm-hmm. code pénal lañ jàng ci loolu seen xam-xam gën a màcc néew ma xamuñu lii mais xarañ ba ca war ak profondeur ba ca war ca biir ñu ëpp ci ñoom amuñu ko. Mm-hmm. léegi nag lii yoon. mooy nañu créer ay brigade ak ay ay comme euh, ñoo xamante ni uniquement sécurité routière la ñu xam droit routier la ñu xam code de la route la ñu xam auto technique automobile la ñu xam. Mm-hmm. ñooñee ñooy nekk ci kaw tali bi xam ni chauffeur bi li muy wax lan mooy talma lan mooy ralentisseur lan mooy frein principal lan mooy frein de parking lan mooy code lan mooy phare lan mooy pneu bu usé lan mooy indice de vitesse lan mooy indice de charge ci oto bi ak loolu lépp. Mm-hmm. mais woo woo woo ay takk da nga tegal leen pneu leen wax euh, pneu bi euh, est-ce que jeex na wala jeexul. Hmm. dañuy bind PV bind na pneu faire apparent. pneu bu per fer yi génnee kay tax du wax pneu dina jeex te fekk na rëdd yi ci boppam effacé wu ñu. Hmm. ndax dafa am ay témoins yu koy wan ci bu ñu la wan ni fii bu fi accès baaxatul. boo yoroon pneu fii moon la ko léegi. Hmm. wax la pneu bi ñaata la attan ci vitesse ñaata la attan ci température ñaatala la attan ci poids dañ ko ciy bind. mais fi mu nekk Sénégal ñu xam lu ñu xam ah. mooy dimension jënd ma pneu dimension cent quatre vingt quinze cent cinq quinze wala ainsi de suite ainsi mais pneu boobu ñu bind cent quatre vingt quinze soixante cinq quinze na la wóor ni am na juróomi pneu yoo xamante ni loolu mooy marque boobu loolu la ñuy doon cent quatre vingt quinze soixante cinq quinze mais bii pour àll la désert bii pour piste la bii pour montagne la bii pour route la bii pour taw la bi pour neige la te pourtant ñoo bokk ay dimension c'est vrai donc loolu xarañ googu nag mooy problème bi Mhm. lumière li nii mais yow xool nga oto yi guddi yow boo doxal si biti sax deux roues da nga ci def ay làmp yu weex tal à led yoo xamante ni yow sa bopp boo doxee tànk ba seen sax da da ngay lépp loo xamante ni dafa nekk éclairage ci oto bi nekk wàccewaale wu ko wàccewaale wu ko boo ko ci defee délit la c'est un délit délit mooy dañ lay jàpp arrêté yóbbu la ci procureur ñu defati kaso bi. Mhm. parce que oto dafa am yoon. mais dafa am tout est Euh, juste rappeler aux internautes yi nga xam ne ñu ñuy topp di suivre euh, yéen a ngi seen euh, édition spéciale bi rek nga xam ne dañ koo jagleel jiyee euh, bi rek nga xam ne dafa am Sénégal lu ëpp 39 personnes ñàkk neen seen bakken selon chiffres yi nga xam ne euh, procureur bu Kaolack joxe na ko euh, par rapport ak accident bi nga xam ne euh, dox si diggante ñaari camion ñaari bus de transport en commun bi joge Tamba bi joge Dakar si tali bu Kaffrine précisément si dëkk bu ñu waxee ñibbi moom nag ñoo fa fa mbëkkante ba lu ëpp trente trente neuf personnes. selon les chiffres. salaamaaleykum. allo. allo oui. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. jaabite. Mm, waaw sëñ bi naka nga def ak foo ñuy wooye ak bisimilah si waxtaan bi. man. Caaw laa tudd maa ngi woote